sëriñ bi barkeb sëriñ Saliou barkeb sëriñ Saliou barkeb sëriñ Saliou jërëjëf sëriñ Saliou Mbacke bokki jullit yi bokki taaluba yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sama nuyoo ak sama kàddu maa ngi ci jiital. ak cant gu ma sant Serigne Touba di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, bokki taalibe nañu bàyyi xel Serigne Mountakha mel ni ku ko gëmewul di yalwaan sunu borom saa su ne moom mi def di dindi ci barkeb sëriñ bi ak yàggam ak wéram di nuyu ñi nga xam ne ñooy kilifa jataay bi te muy ndaw yi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci cheikh Mouhamadul Bachir sunu sang bu baax boobu nga xam ne moo yor kàddu yoonu murit bépp sëñ Maxtaar Silla maa ngi lay jéggalu wane ginnaaw bi yaak sëriñ Abo ak ñi nga àndal ñépp maa ngi leen di nuyu di nuyu waa gox bi yépp tàmbalee ko ci way jur yi ak dëkkandoo yi dëkkandoo yi ñu bokkal pas-pas noo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel yi nu bokkalul pas-pas noo ngi leen di jéggalu coono yi di ñaan sunu borom ñi nekk ci kër yi te jagadi tey dégg sunu kàddu sunu borom wéral leen ci barkeb taxawaay bii te may leen jàmm dolli leen i xéewal sëriñ Moustapha sama kàddu day mënoon naa ñàkk sax bàcc dafa baax rekk te nekk nit koo xam ne xëy na sagaru nit bi ma doon da koo neex léeg-léeg mu laaj ma dara léeg-léeg mu diisoog man ci dara te man xam naa sama bopp li ma xam ci sama bopp nag wóor na ma ni li ci ëpp moo ne ci bokki taalibe yi rek mooy wóor na ma ne nun bëgg sëñ tubaa moo ñu jariñ wóor na ma ni li baax ci nun bëgg sëñ tubaa ko ci def wóor na ma ni itam ak taalu bi rek a nu ñor gannaaw nag ak taalube lanu li nu mën a jariñ mooy ñu xam ak taalube mooy lan ndax ndaw ñi bëgg nañu sëriñ tubaa lool am nañu yéene ci yoon wi waaye ñi ci ëpp dañoo mel ni man dañuy tëñëx tëñëxi rekk te li gën mooy am kilifa jamono ju ne amoon amoon kilifa baaxoon na ci waaye ji jamono la raw ndax kilifa lu tumuranke la ku ne bëgg naa doon kilifa waaye kilifa lu jafe la te sëriñ tubaa lim nu digal mooy nu taqoo ak ku ragal yàlla li nu sant ci ndaw mooy nu sàkku xam-xam ëkkuk njub sakku xam-xam ak njub ak ku ragal yàlla yett yooyu képp moo war a doon yittee ndaw te ndaw yi jamono ji bëgg nañu xaalis bëgg nañu barke bëgg nañu bëgg nañu lu ne waaye nañu jàpp ci li ñu sëriñ tubaa digal te xam ne sunuy njariñ ci la ne ku toll ci jàng jàngal moo xam métier la moo xam école la moo xam daara la addina mooy koo xam ne feek yaa ngi koy dàq doo ko dab sëriñ Saliou wax na loolu dëddu na ba noppi di dem kon jarta dàqi wéyal ci sàkku xam-xam ak njub ndax nit mën naa am xam-xam te du jub la may nag njub gi mooy lii sëriñ bi mujj wax mooy taqoo ak ku defaru taqoo ak ku ragal yàlla tey roy ci moom maam Cheikh Ibrahima noon na murit buy dóori jébbalu ab liir la ci loxoy ndeyam murit du def bu giseeb sëriñam màggal balaa koo gisaat màggal murit day taqoo akub sëriñam ka ñëwoon ci sëriñ Tuubaa ko daa bëgg a defaru sëriñ bi da ko defaru taqoo te jamono jii amatumaab ab jotam ne tekk ba yàgg ne ko Balla Faali defar naa ko sëriñ saaliw da ko daan nettali di wax ne balla faalee am tawféexu sëriñ bi tudd ko waaye moom ak ña mel ni ñoom moom kon bu ay ndaw yu mel nii dajee fi barab li ci ëpp kawar gu ñuul lan yor la nga leen di diggal bu dee yoonu murit gii la muy loo xam ne lu leen mën a jariñ la mooy yett yi ma wax sàkku xam-xam jub làqoo ak ku ragal yàlla mooy wut sëriñ bu ma tub sëriñ bul fan jébbalu bu mu rafet nga jébbalu bu mu njool nga jébbalu bu mu gàtt nga jébbalu bu mu xees nga jébbalu sëriñ tubaa noon na ab sëriñ du rëy jëfam ci yàllaay rëy seetal kam la wóor ne ci njub képp nga la ne te màndarga yi lu yomba xam la ndax nit mën ngaa bañ a xam biiram waaye ku mel ni sëriñ Basiiru Abdou Khadir mii ku xool ni mu ne dand Cheikh mu Mountakha kilifa ngoog ndax nun li nuy wut muy àgg ci yàlla li nuy màndargaal ne am nañu ko mooy am ngërëmul sëriñ tubaa kon kilifa gën a ëpp tànk ci sëriñ Touba gën laa taqoog moom daq laa joxe addiya gën a nangu ndigal gën a saxoo jëfe ndigal yooyu kooka moo jara àndal bu la neexee xoolal sëriñ Fallou ak sëriñ Moustapha Mbar ca Baye Fall ga xeeti nit yooyu mooy nit ñi nga xam ne jamono jii ñu toll mat nañoo roy lool ci seen taxawaay yoonu murit nag julli la julli goo xam ne imaam bi bu fekkee julli aada nii imaam mën naa bañ a ëpp xam-xam ca mbooloo ma mën na caa bañ a gën a ragal yàlla waaye julli gi ñu sëñ Tuubaa tànnal saa su ne kane ca kanam moo ëpp xam-xam moo gën a ragal yàlla moo gën a jub moo gën a jege yàlla moo gën a wér moo gën a wóor te muy Cheikh mu Mountakha kenn sikkul lii may wax boo amee imaam bu mel noonu ci sa kanam doo ko ne kàbbaral doo ko ne rukkóol doo ko ne sujjootal mooy lii xew ci jamono ji sëriñ bi nag war naa wax ndax jamono ji lij na moo la gën a xam moo la gën a xam kañ la nan la naka la boo xamee ay jéegoom ca ba mu doonee sëriñ Tuubaa ak léegi lu jamono xewal ci réew mi moo xam lu neex la moo xam lu naqari la nga xam ci taxawaayam kooku la nga war a def mooy ne tekk di ko déglu di di di fugloon teg ay ndigalam di sàkku ngërëmam di sàkku mbégam wuti addiye joo def ci liggéeyu sëriñ tubaab yi muy université bi góorgóorlu ci lu baax fexe ba doo bokk ci ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi naan sëriñ bi kat war naa def nangam war naa wax nangam sëriñ si nangam lu ne nga di ko lijjanti lu ne nga di ko lëj mbët te ku nekk sa bàmmeel te yoon wi li nga ci jëf képp nga ci moom te yoon wi xeebul sant xeebul aw xeebuli at pëstéef rekk la xam kon la ngay lijjanti melow kee ak ayibam ak nam la neexee nam la soofe sax ko ci ndigalu sëriñ Tuubaa yi moo gën a wóor te damay wax ne murit laa waaye xaaral ma seeti diw ndax tey awma lu ma def loolu laa mënta comprendre li sëñ bind ci xasida li fi ne ci alxuraan diggante xëy liggéey yi wàcc jàng alquran jàng góor góorgóor lu tuuti donte dara la ci xam-xam nga for ko balaa ngaa fatu ana ñàkk a def dara ju la mën a tax a jóg dem di taxawaalu ji murit du am ñaari kilifa genn kilifa képp la yam murit du topp kenn murit kenn moomu ko ku du sëriñ tubaa murit du déglu ndigalu kenn ku du sëriñ tubaa murit du lëjal kenn fii ngeen dëkk seen aw gox la seen doxin seen pas-pas ak seen pëstéef mooy ñoddi ñi ci des mbaamu dàqalin te lii ñu ne ku fexe ba ñu xemmem ko wax nga dëgg ku fexe bañ bañ ko waxoo dëgg ndax njariñu àddina ak alaaxira la ku fexe ba ñu bañ ko rekk waxoo dëgg ku fexe bañ bëgg ko rek wax nga dëgg te jamono jii nun ndaw yi sëñ Tuubaa yi jot nañu jug dugg ci société bu yàqu bii di réew mii ñu ne nga xam ne wor ma amatu ci yar amatu ci teggin amatu ci sutura amatu ci ñu jóg jàngal nit ñi doxin woo xam ne da yii dana dellu siwaat sëriñ bee ko yor suñ leen ko tàllalee ndax jëmmi sëñ Tuubaa dinañ ko jël te buñ ko jëlee jariñu loolu mooy fexe ba foo ne nga montrer le bon exemple bul sol xaftaan dem daayira doon murit jàng xasida ñibbi simmi ko sol jiin doon keneen nañu bàyyi loolu li nga sol ci daayira bi jàngee ko xasida jikko jooju ak doxin woowu na ko liggéeyee seen atelier na nga ko jàngee seen école na ko waxtaane ak say nawle na ko dundee loolu dana la sàmm dana xemmem loo yoon wii te jamono jii mooy jamonoom bu nu bàyyi kenn dinu won aw doxin woo xam ne dees nañ ci xeebee sunu pastéef ak sunu pas-pas gis naa murit yuy wax ne sëriñ tubaa sëñ Muntaxa lii wala laa wala te sëñ Muntaxa man dey talaata fekk naa ko poroxaan te jëmm jëmm a gis bëgguma ñu gëme de jëmm jëmm gis bëgguma ñu jàpp ne ko ko mën a amaat la moom càppa coli la de bu amee nii mu amee ñu amee ko nii ñu ko amee na yàgg de mooy sunu njariñ kenn la kan nga mën a lim ci ji jamono ko ko ko maasee ci am ngërëm ni mu amee ngërëm garaat yi mu takk ci ci mbaxana bi ba ci dàll yi kan kan nga mas a gis ku doonee murit noonu kan nga mën a gis ku jube noonu aw doxin ku gëmee noonu Sëriñ tubaa ku ko bëggee noonu ku ko doylooye noonu ku ko yaakaare noonu daanaka juróom-ñeent fukki at te bu xëyee takk ndigam jàkkaarloog murid yi ñun ñu topp àll bi di wax rek mel ni ay dof lu ne ñu dugg ci nañu góorgóorlu ci sunu taaluba gii te fonk ko te jàpp ko te xam ne buñ ko rëccee li ñu bëgg Sénégal ci lu baax lépp du am dara àddina baaxowul jag mennum Sëriñ Tubaa laa fi gis mu ne ku topp boo amee sama ngërëm am saadatu daari nii mooy àjjana biir ak biti waaye gisuma ci àddina fu àddina di jagee gisuma kenn koy àndal ba am jàmmi àddina ak alaaxira ku du sëñ Tuba kon nañ bàyyi yenn xalaat yi ak yenn gis-gis yi ak yenn doxin yi nañu dooni murit sunu baay yii fi toog ak murit amul luñ ci rëccu te ay kilifa daan na ñëw fii ci Pikine di takkoo ak murit yi di jaxasoog ñoom loolu laa indi defaru gii ngeen namp loolu ak murit di ko dund waaye bu leen def ween wu ngeen gis nàmp ko doom weenu ndeyam a ko jig lii rekk day mooy sama sama sama kàddu waaw balay sa Mbàkke maa ngi lay déglu waaw man day a ah, li ma ci li ma ci jublu rek mooy dama xam fi jamono toll dama dama xam ki ñu am ku fi mas nekkal Sëriñ Tubaa kenn mënu la gën jant nga waaye dañoo am koo xam ne daa mas a taxaw fii ci Tubaa ne ku bëgg a jëriñu xoolal ci man sëñ Muntaxa ku bëgg a jëriñu rek xoolal ci man kon nun sunu kilifa nëbbu nu boppam wax nañu loo xam ne buñ ko defee danañu jariñu tey danañu jëriñu ëllëg te man gis naa ne réew mi seytaane am na fi kaddu coow li bari na wax ji bari na xiiru gi bari na ku ne jàpp na ne lu ne mën naa defar réew mii ba mu des sëñ Tuubaa léeg-léeg nga jàkkaarloog ab murit mu di ko wax dangay ngay rus sëñ tubaab mi ne woon bu dul daray àllaaxira ñëwuma defaral sa àddina képp jar na maa jëkkante bu dul àllaaxira ñëwuma defaral la sa àddina képp jar na maa jëkkante kon nun lan la ñuy daw nun laa gis koo xam ni responsabilité yi sunu kilifa wax ak jël ko diggam ak boroomam kenn mësu koo jël ñun ci jébbalu la ñuy tàmbalee man yuuti ir rasula faqad ataa allah inna allazina yubayyixunaka innama yubayyixuna allah yadullah fawqa aydihim sëñ tubaa donn yonent bi woonu ci jébbalu ñu ne xidma mu ne inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul lu ñuy def lu ne ci yoonu murit lislaam la la ñuy séentu mooy ngërëmul yàqa yàlla laqad radiyallahu anil muminina is yubayi'unaka taxta shajarati te ku am ngërëmul yàlla dinga jariñu tey di nga jariñu ëllëg te li ma jàng ci àddina gëstu ko xam ko topp ko projet de société bi ma gis muy dox muy lii ñuy wax état nation nga xam ne moo jur démocratie moo jur idéologie yi ngeen di gis yépp li jiitu lay fondement ba mooy na yàlla génn ci sunu société ñu organiser ko sunu bopp loolu mooy dëgg démocratie ak yenn xeeti doxal yi ni ngeen di gis yépp mooy na yàlla génn fële ñun ñu doxal sëñ Touba ñëw xam ni loolu du dox mu ne yéen jéeri ji ak géej gi waxul senegal ñëw leen ma yóbbu leen ci yonent bi ne lépp loo xam ne nit jàpp na ne njariñ la wala lor te mi ngi ci loxoy kudul yàlla di waru fii dinga waru fële dinga nga ami coono fii di nga ami fële sëñ mu Muntaxa wax ñu ko ne ñu nañ koy jàng bis bu set ñetti yoon te xalaatuñ ci man danna xayrallaahi yugni aw yadur fa zaaka fi daarayni zu kaddin wa dur kon delloo nañu ci yàlla Seex Muntaxa la yàlla dénk réew mi maa del waat di way ki gën ci réew mi képp am xel mbaa xalaat ci réew mi na xam ne Seex Muntaxa ki gën ci réew mi Seex Muntaxa la yàlla dénk réew mi ku ki jëfam ji xam ne moomoom réew mi ab xew-xewit lu mën a doon ci réew mi bu cay waxam duggee mu jeex ci réew mi xew-xew ba am ba jaaxle tey ci réew mi bu nee jalañ ñu xam ne moomum réew mi loolee da koo doonu ca maam ja Seyxuna Ahmaduna Alxadim mi moom sunu réew mi malakani duniyaa la wax ci réew mi teg ca waxuraa kooku moomum réew mi Cheikh Muntaqa day wax di jëf ci réew mi te waxit mooy daal am ci réew mi coow lii fi am bu yàggutoon ci réew mi ba cay waxam du géel a jeex ci réew mi gaay ca faatu nag di doomi réew mi mu daal di jaale daal di ñaana réew mi cinquante millions la joxe ci réew mi ngir ña ca faatu jàppalee ko réew mi Seex Muntaxa day wax di jëf ci réew mi te mooy daal di am ci réew mi Seex Muntaxa sa fan wi na gudd loo ma sa naal ay mbàkke yàlla na àgg ba ñu ne bu kenn julli ci réew mi Cheikh Mountakha moom rek a julli ci réew mi daa dina tëll tey nuroog Cheikh Bamba gaa yëpp xool ko naa ki lay Cheikh Bamba doon nga yow Cheikh Ibra Fall ca tabe Cheikh Mountakha gi ñaane yaa gën a gore ñu ngi jégalu baax jégalu na baax jërëjëf jërëjëf waaw loolu mu wax rek mooy li ci ne kon nañu xam ne nun murit lépp lu nekk daa war a yàlla lépp lu nekk rekk daa war a yàllaa nan la mbir di yàlla mooy su ka koy jëf di ko jëf wala mu di ko wax mu dëppale ko ak sunna te sunu sëriñ bu tedd bi li ko fi indi woon mooy yeesal sunna si yàlla muhammad alayhi salaam la ca dolli mooy xam sunu tële nun rekk la sunub sëriñ am nit ñoo xam ne tële nañu mu ne képp ku ma bëgg mucc nga àddina ak alaaxira tariqa bu waay mën a bokk te sa njulit rafetul du valable ndax tariqa yi dañoo amee awraat bi ak waxtu yoo xam ne day lañ cay jëf day dëppook waxtu jullit nun ku ne bokk nga ci nun loo bon bon bon bon loo tële tële tële ci diine te bëgg nga sëñ Tuubaa raw nga tey raw nga ëllëg waaw moom rek laa dégg mu ne sëriñ bi nee na sëriñ Saaliw dane sëriñ Tubaa nee na bañu ma ku tële ku jéemul laa bañ parce que xam na ne ñu tële dina ci am am na ñoo xam ne mënuñ dara ci xasida yi mënuñu ko te jàng nañu ay tubaab ba yëy këyit man lu ne Cheikh Béthio daraan wax ne alxuraan benn araf laa ci xàmmee muy waaw te daa nuroog am neuf Cheikh Béthio Thioune mu sëriñ Saaliw kon loola fe beneen a ngoog sëñ Bay Jaxate waxul ne sëñ tubaa dana seexal ku jàngulee raf kon nit mën naa tële lii man lii boole tële lépp nag moo mënta ne ndax sëñ tubaa dana woon sëriñ Saaliwu xaqa euh, tuqaatihi ak taqullaha mastataatum ñaari nit ñi mënuñu koo boole tële mooy ragal yàlla sa kem kattan wala ragal yàlla dëggi dëggi ragal yàlla kon boo defee sa kem kattan wàcc nga kon nañu jéem a def li sëriñ bi bëgg nañu jéem a sàkku ngërëmam nañu jéem a mel ni mu bëgg loolu mooy sunu jàmm mooy jàmmi waa réew mi lépp ci sunu loxo la ne nun murit nanu fonkaat nag xasida ak wakaan ndax jamono ji jamono ma lool coow li bari na lool te xasida wakkaana wakaan bu ñi koy jàng maase woon ci benn bis lank ne dañ koy jàng kenn mënta tée mi takk ni na fi Cheikh Béthio 1991 ci RT rajo senegal bi wax ko ne ko ne digal murit yi ñuy jàng wakaanaaxan te buñ ci fas dara daal sëriñ bi de waxoon na mag ñi bu ngeen jàngee bu leen fas bàyyi leen ma fasal leen ndax yéen bu ngeen fasee bu ngeen feccee xandeer lay doon. ci Sine Saalum la jóge léegi ci dongaay dar wakaar àq bu ngeen fasee bu ngeen feccee xandeer lay doon te man bu ma fasee bu ma feccee wurus lay doon kon ku man xasida ak wakaan aqan fii ñu toll na ko dimbali réew mi lu mu bari doyul. lu mu bari rek doyul fi toll nii góor góorlu nag ci njub akuk taalube ndax bu ñëpp jaaxle ak taalube dong mooy jàllale. li tax ñu naan sëñ bi kat bu nee na ñëpp toog ñëpp toog mooy ñëpp xam nañ ne kàddoom waaw rek la sant waaye bu ko kenn jiitu nag bu kenn digal boo jëkkee rukkoo imaam sa julli yàqu na boo ko jëkkee sujjóot sa julli yàqu na boo ko nee subhanallah te waxagul si julli yàqu na sëriñ bi daa wara sëriñ bi warula la mu toll nii nag ah sëriñ si nag nangam ñun buñ ci boole ki nu am ndax bukku ci nan ko delloo teraanga ji mu teral ay magam teral ko ay waajuram sëñ Muntaxa da daan wax ne sama kilifa dama koy bàyyeek boppam bàyyeekook sama bopp nan gore ñun delloo ko loolu rek nan ko bàyyeeg boppam mu féex nu bakkook sunu bopp doyloo ko yaakaar ko te gëb ko defe ngeen ne sëñ Muntaxa dina fene fii dara di fi yàqu bu dul woon doomi sëriñ Basiiru li ma am ci ngërëm xajul ci sunu defaru tey ak ëllëg maa ngi jéggalu ñi coono yi ma leen di teg sëriñ Moustapha waaw jërëjëf jërëjëf. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey